jusqu'en 2024 Sénégal dafa nekkoon ci période de de de, de tension. Mhm. Euh, tension yoo xam ne am na moment boo xam ne euh, tout le monde euh, doutait de la capacité de nos institutions à contenir euh, cette cette cette tension là. Mm -hmm. Et là je je m'arrête sur les sur les sur les élites politiques euh, Pastef Ousmane Sonko décrété le le sa gatsa mhm. sa doxul ñu lancer seen stratégie politique une stratégie politique qui s'est avérée euh, qui s'est avérée payante. Mhm. ñu ñëw élection euh, les Sénégalais la majorité des Sénégalais euh, seen choix ci li nga xam ne euh, moom mooy seen euh, projet. Mhm. lan la in fine. la classe politique wala wala war a war a retenir. on va avoir des néo-opposants man waa affaire li ngeen di xaar pour opposer wu laa xamul <laughs> déserté ngeen terrain bi wàcc leen ngeen opposé wu <laughs> ils ont disparu la démocratie la démocratie comme la, la démocratie comme la démocratie comme tout individu à deux poumons la majorité et l'opposition il faut que les deux poumons fonctionnent normalement pour que da nga doon war a retenir la ci la classe politique wa war a retenir in fine parce que c'est quatre ans euh, de tension yoo xam ne ça a impacté l'économie ce sont quatre ans de tension yoo xam ne euh, ça ça a même failli impacter heureusement qu'on s'est relevé euh, mm-hmm. l'image du Sénégal que l'État n'est euh, pas tombé voilà que l'insurrection que l'insurrection n'a pas gagné parce que on a une gendarmerie une police qui ont été à la hauteur, à la hauteur des attentes Sénégal boo gis boo gisee gendarme wala policier war nga ko fonk parce que li way liy taaru Sénégal mooy teranga ak démocratie démocratie boobu nag bu ma nee am tey jii ba ñu dem élection ñoom ñu gagné ñëpp ñun ñëpp mooy suñu kilifa léegi Bassirou Diomaye Faye mooy ñun ñëpp mooy suñu kilifa mooy kilifa ñëpp donc c'est parce que l'armée la ak la gendarmerie man li ma doon kii rek mooy que état bi daanu que Sénégal ñu nekk ci ay transition yu dem li nga xam lañ am ñëpp ñeewuñu ko am na ñoo xam li ñu bëggoon mooy Sénégal ci loolu dugg ci guuta googu et qu'on devienne comme tous les autres pays de la sous-région comme tous les pays africains un pays banal donc li nga xam ni ñoom ñoo empêché affaire boobu am Sénégal war na leen delloo njukkal li ñu ci a jàngee mooy li ma doon wax boo nekkee ci dëkk da xam dëkk ba da ngay xam les réalités dëkk ba li ma doon wax Sénégal boo ko Ablaye Wade Ablaye Wade Afrique moo fi indi opposition légale di man defuma guérilla defuma gatsa gatsa defuma guerre civile damay def opposition légal damay dem assemblée nationale damay créer journal damay dénoncer ba finalement noonu la falo li ñu ci war a jàngat li nga wax. bu boo nekk école primaire boo defee dara maître bi nit bi ñuy nekk école primaire monsieur Sarr moo ñu doon jàngal monsieur Sarr dafa woon benn bambou benn bambou xam nga li ñu bindoon ci bambou bi maye xam-xam. moom <laughs> maye xam-xam boo defee dara après boo jaaree ci may xam-xam ba pare dañ lay defal leçon su li ci mën a jàngaat mooy pour Pastef on peut dire que la leçon est sue parce qu'ils ont compris rapidement que dans ce pays-là on ne prend pas le pouvoir par les armes. On ne prend pas le pouvoir par la rue, on ne prend pas le pouvoir par la violence. Ils ont revenu à quelque chose qui existe au Sénégal depuis 1974, l'opposition légale. L'opposition légale. Donc la leçon est sûre. Ils sont revenus à l'opposition légale, le président a voté une loi, loi d'amnistie, ils sont partis aux élections, ils ont gagné, alhamdoulilah. Mais c'est ça qui est bien, que nga xam Sénégal pour nga jël pouvoir, il faut aller aux élections par les urnes. boo gagné par les urnes nag erreur bi ñu defoon en tant qu'opposant il a fait con dañoo confondre l'État ak le régime il pouvait déclarer la guerre à Macky Sall ak à APR ak Benno Bokk Yaakaar politiquement mais erreur bi ñu defoon c'était de déclarer la guerre à l'État di menacer généraux yi di menacer magistrats yi ils ont compris c'est des erreurs de jeunesse ils ont compris l'État leur a montré que c'est pas ça ils ont mis au placard le gatsa gatsa ils sont devenus dans l'opposition légale il faut que tout le monde salue ça Sénégal opposition légale la ñu xam démocratie opposition légale la ñu maintenant qu'ils sont au pouvoir il ne faudrait pas aussi qu'ils commettent la même erreur confondre régime ak yi même ceux qui avaient pris des décisions contre les gendarmes les policiers qui avaient fait des choses contre eux c'est l'État donc ils n'ont rien à faire avec l'État donc maintenant s'ils veulent croiser le fer ils n'ont qu'à croiser le fer avec ce que ce que tu appelles la néo-opposition que l'État du Sénégal ñu bàyyi ko de côté parce que les régimes passent mais l'État demeure l'État demeure et amul image bu gën a rafet la 4 avril président Bassirou Diomaye Faye ñëw tous les chefs militaires se mettent parce que loolu mooy seen devoir ñoom képp ku sénégalais fal ñu topp sa ginnaaw mais mën ñoo topp koo xam ne sénégalais faluñu la li ma doon wax sànq li ma est très belle bi nga nekk opposant di def ay a gatsa gatsa GIGN bi la jàppoon mais tey jii ñoo ñoo nekk sa wet li ma xamee officier Sénégal ak généraux Sénégal ils le font sans état d'âme ils vont avoir la même compétence la même loyauté et la même distance qu'il avait avec Macky Sall ils vont l'avoir avec Bassirou Diomaye Faye ils l'avaient fait pour le prédécesseur de Macky Sall ils le feront avec le successeur de, de Bassirou Diomaye quand les Sénégalais le décideront. Et donc c'est pourquoi le général Moussa Fall est un homme de valeur. c'est ça la grandeur. Mhm. mon allégeance ne va pas à des personnes, mais, mon allégeance va à la République. Et il a du mérite parce qu'il a sauvé la République. Il a sauvé ce qu'on a de plus précieux, cet État qui n'est pas tombé. Et les gens qui avaient en face, comme je les appelle, nos frères égarés, maintenant